kolobaan nag ñoo aawlu kolobaan maa ngi doog a xam ne da ngeen a aawlu dëgg kolobaan ñoo aawlu Kalilou Koulibaly leen naa la ko wax de boo naasee sa bopp jàpp ni waa kolobaan ñoo jël sa portable billaay boo jullee du nangu gis nga ñii la wëroon ñan la biir pale palais nga nekk ministres yi ñoo la wër député yeeg ay directeur général ak nangam nangam gis nga booy wër ku la tafu ñoo ñoo la tafu waa kolobaan daal ñoo aawlu waxal te bi portable bi feeñee mënuñu laa wax ni kenn kii la lu tax ah kolobaan daal ñoo aawlu lan la gis nga ñooñu la wër billaay wallaay wa taala xool ay compte milliards yi milliards la ñuy yor te jël liggéeyuñ ko goruñu yattuñu ci dëkk bi lañ ko jëlee di lekk di naan baadoole yi bëgg a dee Kalidou Koulibaly ñoo yay sàcc la ñii ñoo yay sàcc la bu doon gaay waa Kolobane la sàcc sax dagan na mais ñi la sàcc mooy ñi ñu sàcc ñun suñuy sàcc la sàcc waa aca